Soukeye Mbaye keroog aljuma bi 11 jotee wala boog 9h <laughs> euh, 9h Ousmane Sonko dafa posté ci page Facebook am jox Sénégal yëpp daje ñi dafa am leeral bu mu war a leeral. Mhm. woo journaliste yi. Mhm. ginnaaw bi mu woowee journaliste yi nag moom Ousmane Sonko am na ay révélation yu mu def ndax loi bi dañ ciy tënk lu baree bari loo xam ne mbirum terroriste judd na ci ak yeneen ak yeneen Ousmane Sonko nag leeral yu bari yoo xam ni sax am na ñu ñu doon euh, taqal seen i loxo dafa taq ci li amoon. Euh, ci li nga xam ne mooy réewum Xaddafi mi ñu taal ah. ak lu ci mel ni Mali gi toj gi mu toj Ousmane Sonko lim ba lim ay tur ku ci mel ni Sarkozy ak ñeneen ñoo xam ne dañu doon tudd ci jëf jooju le mu ni du ñu jóg te dugg gi ñu dugg Dakar itamit mosuñoo jóg ci di waxtaan ak état bi fi nekk mu ni nag kon bu ñuy wax mbirum terrorisme ak yeneen feneen lañ koy jëmee ba leeral ci yu baree bare bari xam naa journaliste yu bari keroog bi ko Ousmane Sonko jàpp naa waxee ci la ñu am information ni sax kooku ñu naan Sarkozy dugg na Sénégal Ousmane Sonko moo wax loolu le xalil ci yow la ñuy dooree mu mel ni daan Sonko bi ñu tóoralee loi bi ñu bari jàpp ni moo tax ñu samp ko génn na moom teeral raxas ay loxoom wane ni moom du terroriste. Mhm. xam nga euh, terrorisme d'abord buñ ci demee. Mhm. buñ ko gën a yaatal. Euh, olof nag dinay wax ne bukki bu bëggee lekk doomam danaan ko da ngaa nuroog béy. da ngaa nuroog béy. waaw. Ah. président bu bëggee tey ëllëg. mu samp loo xam ne biir na ko ne askan wi dinañu génn ne ñoo lànk. Mm. dina leen kar ci ay kàddu kar leen ci ay xoqatal génne cravage teg ay charte ne voté leen li bu jàllee ëllëg bu loolu amee ku fi manifester ñu taqal la ne terroriste nga ñu jël la denc ci kaso bi <laughs> yooyu yëpp ay feem la yoo xam ne sunuy njiit dinañu koy def mooy li ma waxoon sànq ne ñun askan wi ñoo war a mën a yeewu xippi sunuy bët euh, usmaan Sonko nag peut-être fa muy waxee euh, dafay teel yee askan wi wane leen wan leen ne ëllëg mbir mën naa am ñu jiiñ ma wala bokk ñu méngale ma ak lii te bu boobaa na leen bir ne loolu ñu may méngale amul maanaam day waajal boppam pour ëllëg xam nga kii daa waajal boppam pour ëllëg bu defee la muy def ku taxaw ci mbedd mi manifeste ñëw lànk lii du fi am réew mi réew mi ñëpp la ñu jàpp ñu jàpp la ne la terroriste nga uh-huh. parce que dañ ko voté woon ba méngoo ci ba d'accord ci kàddu fas ko teg uh-huh. kon ku ko defati rek bu ñu la jàppee dangay ngay da lay wóor ne uh-huh. waxoon nañ ko li olof di wax ne mbaam àll ngay ñëw ku mu màtt yaa xam ndax ba muy dikki seen ngay bëñam macha allah di Didi euh, opposition bi bari nañu bu ñu voté loi bi rek Ousmane Sonko jóg loolu la sa xel di jox ndax dafa jàpp ni moom moo tax wala wala wala wala xam nga buñ ne ku moom xar da nga bàyyi Ousmane Sonko dafa mel ni loolu la def jamono ji que loi yi bu ñu ko tëralee rek moom mu génn wax ko tëralal mhm. que instant bi toll nañ foo xam ne ñun ñëpp ay terroristes lañ d'après li ñu wax ñun ñëpp ay terroristes ah, waaw Ousmane Sonko li kii wax sànq rek mhm. li kii wax sànq rek mu ngi mu ngi setal mu ngi setal boppam mu ngi prévenir nit ñi que moom du ci dara mhm. yaa ngi gis donc moo tax mu génn wax li nga xam ne moom la wax mais nañ jàpp ne rek ak lu mënti am rek ku nekk ku weet ku ne xam sa bopp. ku weet xam d' accord mi ngi noonu euh, Bambi. ajjuma Ousmane Sonko def na discours lam ca wax bari na lool xam naa sénégalais bu ñu demee daañu ko seetaan mais daal raxas na ba mu set wane ni daal ñey yor mbirum terroriste yi ñu ngi xaritoog gaañu ne fii. man euh, bi ñu war a valider décision bi Ousmane Sonko rek ko ko moom. loolu képp kuy opposition ci nga bokk bu fekkente ne dañ ne terroriste dañoo war a dugg Sénégal opposition bi ci gis seen bopp. wala moom kese mu gis si boppam moom kese mu ci gis si boppam parce que tey jii da lay na son yi boobu local yaa ngi ñëw tey boo mitingee wala ñu bëgg a tas sayif wala histoire am wala marché am dara yàqu ñu fekk la fi ne la yow yaa saccagé yow yaa yàq lii yaa gaañe lii yaa dóore lii mais man jàpp naa ne avant jàppoon nañ fi ñi ñu wax ci ñu waxoon ne ay terroristes lañ ba tëj leen jàppee wuñu leen woon ci ay rassemblement jàppee wuñu leen woon ci ay saccagé mais pourquoi léegi article bi bëgg a changé ñu bëgg koo man daal comprendre bu ko changer maanaam firee ko d'une autre manière ba bu ko ñaawal bu ko aggraver ba mu yegg si fii. Mhm. rafetlu ma ko. Mhm. te buñ ko valider tamit. ndax borom et du xeex ak borom fetal mhm. yoon kenn mënul xeex ak moom majorité bi assemblée ñoom la lu ñu ne tey lii moo fi am dañuy wax ba dee Ousmane Sonko ak ña fa nekk ñëpp dinañ wax ba sonn ba ne saay te mënuñoo fexe ba Macky Sall la mu décidé wala assemblée la mu décidé duñ ko valider. Uh-huh. mais dañ leen di lancer rek un appel solennel di wax ak ñoom ci njekk ak teraanga. xamal leen ne ñun Sénégal fii ñu fi nekk terroriste ak ñu fi nekk ay étranger di fi dugg tamit ñoom ci seen biir xam ne yi fi ay lobby la xamante nañ mais xamante nañ dañ doon sañuñ wala ñu jàpp leen te may ñu ci des jàmm ba ñu tuumaal doomi jàmbur yi uh-huh. na rafet ndax réew mii ku ko taal ci sa kaw lay tàkkaat dëgg neexu réewu jàmm la réewu diina na rafet am na solo fitna gi na su kaa euh, gis nga li xew Ousmane xam nga euh, son yi bu mm. dafa amoon nag loo xam ni lu fi xewoon la mm. kenn du ko naan tamle lañ euh, Ousmane Sonko dañ ko fi woowoon mu am loo xam ni rassemblement loo xam ni euh, Sénégal toj na mm-hmm. nit ñi tiit nit ñëpp ku ne am foo toog ku ne ku ne di am loo wax mm-hmm. moom Ousmane Sonko yàlla may ko foofu doole mu am foofu doole boo xam ni ñëpp dañ ne Ousmane Sonko Ousmane Sonko Ousmane Sonko mm-hmm. la la woonoon xëy na la bañaat mu mu mu amaat. Hmm. ndax dafa am loo xam daf koo bëgg nag. Hmm. moom Ousmane Sonko dafa am loo xam daf ko bëgg. muy wane ni moom lii du moom. Hmm. yaa ngi déggam. kon gis nga mbirum terroriste yow tamit nag son bu bu. buñ koy wax xam nga buñ mosaan wax terroriste da ngay tiit. léegi buñ koy waxee doo tiit ndax ñun nii am na yoo xam bu la buñ dañ lay xokkatal loolu terroriste la comme ni ko saa di waxee. moom ni may def nii. moom mii ci boppam moom saa njóogu. terroriste la. ay <laughs> jaajal jaajëf Soukeye Mbaye oustaz euh, xam naa di nga ñëw ci baatu terroriste est-ce que sax terroriste am na li nga ko kiiyee bala ñoo dem ci alaaji saa waaw dama ci tënk lu gàtt rek mhm. eh, gis nga kii euh, gis-gisam mhm. nee na la Ousmane Sonko dafa am lu mu bëgg mhm. dégg nga euh, Didi fi mu waxee nee na ah am na ku weer dara ci ligne bi rek nga ni nga ni yaa ko moom kon da ngay gis ni sénégalais yi noonu lañ mel ku ne ak sa gis-gisu bopp ku ne ak sa dégginu bopp. xam nga lan moo njëkk a ñaaw euh, soin boobu. Oh. mooy assemblée. ñu war a daje. Oh. ñëpp toog ñu war a wax ak askan wi. war a wax ak sénégalais yi. Oh. ñoom ñooñ nga xamante ni dayewuñ leen fa dara lu dul benn baat nag. député benn baat dong lañuy soxla ci moom xam nga mooy lan. revendiquer. mooy jooy jooytul sa askan. jooytul sa population ci problème bi ñu am yow lañ fa teg. ca pencum ndaw réew ma soo demee na nga toog wax ak àdduna ñu déglu la mais jarul coow yi ci am son yi bu. mais léegi ba ah? député président dafa am nag looloo yàq yi fi. waaw jëm. Mhm. xam benn affaire bu fekkente ni président de la république Macky Sall defar réew mi rek ko ko tax a jóg. Mhm. problème yi amoon bañ naan ay sàccang ci biir rek ay bandeng ci biir rek ak mais su boobaa nañ valider su boobaa nañ valider loi bi ndax réew dañ koy régle réew dañ koy teg ci xam-xam. du ku neex def lu la neex. mais mais agression maa ngi ñëw. mais mais Oustaz foofu bala ngaa wax euh, kii am. waa réew mi nañ voté. day fekk nga daan wax dëgg sa askan ba pare. foofu laa jëm terroriste ya nga daan jàpp ba ni jàpp nañ leen. xam nga mat nañ fukk ak lu teg. waaw mais ba léegi amul preuve naa bu fekkente ni Macky Sall. Hmm. li ko tax a jug mooy defar réewam. Hmm. organiser réewam ci ay agresseur ndax am na fi. Hmm. mais nervi yi ko ñu comprendre lii ñoom fan lañ jóge te pourtant ñu ngi ñu ngi agressé nit ñi di duma nit ñi di kere nit ñi di nangu xaalis nit ñi. agresseurs yi nag. agresseurs yi. kon bu dee loi bi looloo ko tax a jug laa wax. bu dee loi bi looloo ko tax a jug jar nañu valider ko léegi foofu jeex. mais est-ce que loolu moo tax loi bi jug nag. Hmm. sooy bu est-ce que loolu moo tax loi bi jug ñun Sénégalais population yi population bi li ñu xalaat mooy xëy na dañuy moom li mu bëgg mooy troisième mandat. waa réewam ni ko ànd ñu ci troisième mandat bi. sénégalais yi ñoom ànd nañu ci troisième mandat léegi problème am na est-ce que du kon ay stratégie la ñu teg pour génn léegi nag ñi doon wax démb ñu si bari déggoo leen ñu wax ci cas ñu doon wax ñu baree baree bare bari déggoo leen ñu wax ci noppi googu ñu noppi fan lañ ko teg kon li li li nga xam ne mooy problème bi su fekkente ne dañoo bëgg a voter bi pour intérêt waa APR mm. loolu jaaduwul rafetul teguwul ci yoon mais na doon intérêt Sénégal na loon intérêt population bi ñun ñëpp ñu ngi si suñu bopp mais créer loo xamante ni da ngaa créer loo xam ni li nga ci jublu mooy dafa am loo bëgg pour nga pour nga yegg ci loolu nag foog nga géem a tënk yi ku déconné ma duma ku woote rassemblement ma duma fu ma gis fukki nit dajaloo ma duma loolu su dee loolu la sénégalais yi waruñoo accepter waruñoo d'accord ci ñu valider. Euh, article boobu mais bala maa dem ci Sa Ndiogou yéen Oustaz. Hmm. nañ ma déglul rajo yi ak télé yi. Mm-hmm. ban ci imaam yi ak kan ci ustaas yi. Mm-hmm. moo ñemeetee jàngale tudd baatub jihaad. amul eh, eh, eh, nangootuñ tudd leen koo tudd. waaw seen conférence tuddatu leen jihaad. Mm-hmm. te dafa am ba léegi Sëñ Tuubaa dañu woon. Uh-huh. day jihaad. Uh-huh. bi tuqaa. Uh-huh. la waxoon ci lay ci ragal yàlla. ak xam-xam. mais lan moo tax ustaas yi nanguwu ñoo tudd baatub jihaad ci réew mi. waaw xam nga xam nga jihaad. waaw jihaad dafa bari façon soxna. waaw nga laaj ci lu baree bari. Euh, jihaad nag jamono bii bii ñu toll. Ah. dafa am lu ñu bi bi ci bi ci Sénégal jullit ñu soxla. Ah. mën nañu tuddee ak jihaadu nafs. waaw jihaadu nafs nag fa lañ toll. yonent bi alayhi salaatu wasalaam geer na geer yi mag ñu fi jaaroon geer nañu geer yi actuellement nii jihaad bi ñu soxla mooy tarbiyatul islam waaw ah, mais tarbiyatul islam mooy lan ma sooy <laughs> xam nga xoolal fa ma wiiri non wiiru ma la sooy bu wiiru ma la foofu <laughs> xam nga tey l'islam imaam yi li ñu mën xam nga loolu euh, euh, wa anzalna wa anzalna mhm. wa anzalna la sunu borom wax mhm. euh, wa anzalna dhikra mhm. li tubayyina linnaas li tubayyina linnaas maa nuzila ilayhim wa laallahum yatafakkaruun waaw xam nga soxna bu suñ nee jaat boo ma laajee ci côté boobu ni ma jaat benn imaam nangu ko ko tudd ah. bu fa diine eggatee bu demee ba diine eggaat fa ah. foo xam ne xare day taxaw ah. su boobaa xare day xare ma mënta amaat kon xam nga xare mënta am non dama ne xare la amoon waaw mooy la amoon mais jamono ji la baatub jihaad xam nga tey ku fu ne jihaad rek waaw dañ lay jiñ léegi jihadiste waaw foofu laay waxee moo tax ma ne ñemeetu leen a tudd ni nit dafa war a war a jihaad fu mu toll ci àddina jihaad nag buñ ci tollee dañ ko war a te xam nga mooy lan mm. euh, sony bu mm. jihaad dara gën cee dara gën cee parce que buñ bu ñuy wax jihaad mm. bu ñuy wax jihaad Cheikh na Cheikh Saad bu waxeertu sérif bi bi mu demee fo point bi nga ma toll nii bi mu demee ba am yëg-yëg boobu dafa ni gars yi teg leen jaas yi teg leen ne la jaas yi jihaaduna huwa jihaadul akbaru ñu ni ko lan mu ne silaahu na xëy na la tuntu karraru c'est que yaa may ni ci baatu jaar la bëggoon dugal te yaa may dugal ci ci teen boo xam ne sony bu buñ fa duggee mu jël temps léegi émission bi day day waar waaw foofu moom bëgg mu ñu daal mooy jaar <laughs> jaar pour xeex moom lislaam jamono ji doonu lu lislaam taxaw oustaz fekk tooñ a ngi am bañ du fi jóg d'abord loolu mooy li nga xamante ni bi mooy àdduna que ni mu nekk époque jamono yonent bi ba jamono ji fekk tooñ a ngi am mhm. bañ du fi jóg mhm. il faut nit ñi di bañ mhm. parce que tooñ ci boppam mooy am voilà loolu mooy li nga xamante ne bii moom xam nga sooy bu boo jëlee waaw euh, problème kii bi kii mbiru mi nga xamante ne bi am na nii mu jëm ci wàllu terrorisme oh. ñu tëgg ko defar ko oh. yóbbu ko assemblée nationale ngir ñu voté ko oh. di ko voté teg ay alkaati ci mbedd mi ñu fees dell ci dëkk bi ci ñoo xam ne nee nañ askan wi la ñuy waxal ñu ne nañ leen aar balaa askan wi dal ci seen kaw uh-huh. loolu moo lay wan ne la kon defal lu ñu askan wi uh-huh. barki dem boo jaay askan wi yëpp dajaloo place de l'Obélisque uh-huh. taxaw ne dañu bëgg ñu ngóor jigéen taxawuñ ci lan lañ ci def dara lenn ba tey kenn waxu ci dara ñu ñëw indil la loi xam nga eh, Ousmane Sonko dafa am loo xamante ni bii loi bi bu jógee buñ nee la moom la c'est parce que ni mu fiy waxee amul benn opposant bu koy waxee noonu ni muy taxawee affronter nguur gi amul kenn kuy taxawee noonu di affronter nguur gi ci façon bi mu koy defee oh. loolu am na ëllëg si biir mën nañu ko solal tubay joo xam ne tey oh, ñu ne Ousmane Sonko mi ngi mars mars yi fi am yëpp ci Sénégal Bougane a ngi wax non bokk wax yi bokkul quoi euh, xam nga <laughs> Bougane mi ngi wax ci teleem xam nga son bi yaa ngi tax maa ngi. allo Bougane a ngi wax. yaa ngi tax maa ngi fay ma fay xam nga Seck dama la bëgg a wax dara. waxuma du jàmbaar de. vraiment non waxuma du jàmbaar. waaw li mu def ci réew mi. mën nañu wax ni. mën nañ ko nangu waaw danga may déglu rek. waaw danga ni waaw mais Seck dama la dama la bëgg a wax leen. xam nga Ousmane Sonko. waaw ak Bougane seen différence xam nga mooy lan. waaw day bàyyi ba président def mu topp ci. Oh. kii nag day wax lu ñëwagut xam nga kii wax lu ñëwagut ak kii topp ci waxu kii def ba noppi. bokkuñu oh. quoi xam nga tey lii ñuy wax affaire terrorisme. soo ko waxoon na ko avant que ñuy ñëw ci loi bi. waaw yaa ngi dégg. Mhm. tey ñu yegg si bi ni Sonko moo ëpp vision Bougane ci ni ma la déggee. non peut-être moo ko gën a xam li xew d'abord ci réew mi ak li ñuy waaj. c'est que da koy wax li ñuy lii waaj a ñëw la lay wax. bokkut ak kii wax li fi nekk ma dugalaat foofu alaaji ma dugalaat foofu mën a teg carte sur table la nag moom tam la non waxuma ne bugaan xam nga c'est que bul jaxase dama ne la ma dugalaat foofu bu dee wax li ñëwagul dama ne fii ci politiciens yi amagul politiciens yi bu fi mas a teg tableau di jàngale ni ñuy yorem réew te bugaan teg na tableau fii ci Walfadjri di jàngale ni ñuy yorem réew léegi ñëwal nañu jàngal nañu jàngal jàngal ni ñuy yoree télé ba pare léegi ñu ñëw ci li nga xam ni waa mais non tooñ ma yaa ngi tooñ parce que man non yaa ngi tooñ xamul tax muy tooñ xalil xamul tooñu ma bugaan bugaan waaw journaliste la waaw bugaan borom xam-xam la bugaan ku ko déglu xam ne waaw mais Seck oustaz il faut nga may ma mais naa la may nga dem Seck dama la wax ne la xam nga non kii da ne na ko kii def ne doon def ne kii def ne daf ñu jàngal nu ñu yoreem réew ma ko nañu jàngal nu ñu yoree télé ba pare parce que dafa am ñoo xam ni génn nañ ci teleem taxaw ci média yi wax wala déedéet daal di wax ne na mu ko yoree warta demee noonu mm. donc nag réponse yooyu mooy li nga xam ne moo fi ne donc moo tax ma ne nañu wax ni mu ñuy yoree télé ba pare yoreem réew euh, li may wax uh-huh. dama wax ne ëllëg si biir son yi mën nañu def benn manifestation xam nga manifestation yi nga fi gis yëpp ñu autorisé ko pas de problème uh-huh. mais bi ñu dugalee terrorisme ëllëg si biir Sonko mën na créer fii benn manifestation uh-huh, ñu infiltrer ñu dugg ci biir ba noppi wëlbatiku def seen i yàq. dëgg la ba noppi tuumaal ko ko. ok est-ce que comprendre il faut nga préparer sa bopp wax loo xam ni ëllëg si biir bu loolu ñëwee uh-huh. nga xam ne teel ngaa wax nit ñi uh-huh. li nga xamante ni bii moom lañ nar ak li ñu bëgg a def uh-huh. c'est que loolu mooy li nga xam boo gisee Sonko sonal leen loolu rek mooy problème parce que da leen a jiitu day am yoo xam ni dañ koy nar mu wax ko balaa ñu koy def léegi ñuy jéem mooy toog ñuy jéem a kii parrainage sax ñu ñoom jàll mhm. comprendre nga liñ naan maaxuus jàll xam naa ni ci maaxuus kenn jàll ma parfois ñu koy def mhm. mais li am solo ci mbir mi mhm. mooy sénégalais yi ci seen jëmmi bopp ndax nangu nañ luwaa bi wala nanguñ ko xam nga bu ma gisee jamono ji ñu fi gars yi di déconné ñu ne gouverneur tere na ku yor scooter ma ne waaw gouverneur dafa contrôler si dara bay tere ku yor scooter ak ku ku xëyul jamono ji xale yi génn yor loi bi ci mbedd mi. waaw téye ko di taal pono yi ci mbedd mi nga xam ni euh, gendarmerie ñàkk fële kii débordé nañ kenn mënatu la kii gouverneur naan ma ngay naan bu kenn dawalati scooter. loi dafa amati ci mbedd mi. si xam naa waaw waaw. loi day fekk nit ñi nangu cee tënku. waaw ña ëpp ca askan wa. mais bu fekkee ne teg nga loi boo xam ne ñu ëpp ci askan wa wuñ ko. ëllëg si biir bés boo provoqué loo xamante ni bi mu ngay yëngal dëkk bi. bu boobaa loi bi dootul dox leneen ay dox beneen loi moo fi am. donc il faut que tamit ñoom ñu xam loolu quand même. macha allah ayca muy lu muy lu muy lu am solo euh, su koy mbaay jërëjëf.